Chers téléspectateurs de l'ERL TV, bonsoir euh, et bienvenue dans votre nouvelle émission Instant Droit. Euh, nous avons le plaisir euh, et le privilège euh, de nous entretenir aujourd'hui avec euh, Maître Salima Madoucham, avocat à la Cour. Il est chargé de communication de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Et bonsoir, Maître. Oui, bonsoir, euh, madame. Bonsoir. C'est Astou Sanya. bonsoir. Oui. Euh, bonsoir à toutes et à tous, donc à tous les téléspectateurs de DRFTV. Euh, donc, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être là au nom des avocats, mais en particulier au nom de l'Association des jeunes avocats sénégalais, pour euh, nous entretenir avec vous sur des questions qui intéressent les Sénégalais. et merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème de la violence conjugale mbokk yi xarit yi nag ñoo ngi leen di nuyu di lay xamal ne ret euh, yéen ngi seen émission bu bees bii di instant droit ñu fas ne nag euh, euh, waxtaan ak maître Saly Mamadou Thiam si affaire violence conjugale léegi nag avant ñuy commencer suñuy question nañ dem régie xoolu micro trottoir micro trottoir bi te ñëw. waa waaw violence conjugale bari na euh, en même temps jigéen ñi ñu ngi souffrir parce que tey ji da ngay nekk euh, sa borom kër parfois mbëggeel gi nga war a am ci moom doo ko am ci moom wala mariage forcé sax même temps mën na ko indi en même temps mën nga nekk sa borom kër mu tàng doo ko comprendre wala mu liggéey wàcc sonn nga war ko dalal war ko dëfal ba xolam sedd loo ko mën a demandé nga demandé ko ko mais noonoo non da ngay bàyyi mu wàcc ni mu tàngee noonu rek nga jékki-jékki ko gaz bi jeex na wala courant bi jeex na xolam tàng donc waxtaanoo leen ba xolam sedd nga mën a am ci moom li nga am ci moom je pense que man pour man looloo koy indi lu bëri. sëy moom vraiment ay dóor waru cee jib franchement muy ci ku góor ki di ci ku jigéen ki parce que sëy complément la. bon ku nekk dafa war a comprendre moroomam ba nga xamante ne loxo du ci jub daal di sottante xalaat ku nekk nekk confinant wu moroomam kii nekk yaayam ki nekk papaam ba nga xamante ni dóor du am yoon. da xolam bu tàngee wax ji day ñagas yow nga gis sa bopp nga am noo réagiré moom mën na la dóor wala mën na la mën na la def lu metti daal loo xam ne. pour man looloo koy indi. bon violence conjugale bi ni ma ko gisee mooy que ne du loo xam ne daal lu baax la ci couple parce que je crois que ne ñaari nit su ñu demee bay ànd ci sëy sëy daal dafa nekk loo xam ne lu sacré la daal ku ci nekk da nga war a compléter sa moroom mais bu ci ay violence amee dootul nekk euh, sëy daal man noonu laa ko gisee parce aussi Euh, am na ñoo xam ne dañuy nekk ak seen jëkkër ñu leen di dóor di leen saaga. sëy ay jàppalante la kenn matul ku nekk da mottali sa moroom yaakaar naa loolu bu amee rek wàcce sa bopp wàcce tension yi parce que tamit nit du chaque instant rek ngay mer. jigéen waroo di ko final ndax euh, ñun jigéen moo ñu jur suñu yaay jigéen la suñu jabar aussi jigéen lay doon donc jigéen da suturaal. que ce soit la situation da nga war a suturaal mënuloo ko ay yenn défaut te instant yii toll nañoo gis euh, euh, jamono ju nekk ni góor ñi dañu jàpp ay jigéen di leen dóor ba ñuy dee. au contraire aussi jigéen ñi di sotti seen i jëkkër ay acide euh, di leen def naka sutu noonu instant yii lu lu kii sëy la plupart mooy confiance moo amatul. pour man mbëggeel amu fa. ngeen ñàkk bëggante relation bu yàggul deux semaines trois semaines ngeen marié xamul sa jikko xamoo jikkoom. nga dugg ci ngir alal wala nga dugg ci ngir dala fekkoo ko fa nga tas pour man looloo koy indi. doo am ci moom confiance ci waa nga dégg ci moom benn affaire nga ñëw ngeen tàkk nga am problème nga door ko nga gaañ ko jigéen man problème bi nga mënut a am mën nga mën nga ko calmer wax ak moom ci problème bi dans le calme ngeen régler problème mu jeex. maslaa bi ñëw diine ji yar ji lépp ñëw rek xam nga da ngay da ngeen ni stable daal da ngeen ni sëy normal kenn du leen dégg te lu bari. jabar mu leen di dóor di leen saaga du leen considérer aussi am na beneen côté boo xam ne du question du dóor ak saaga kese mais verbalement am na ñoo xam ne du ñu dóor mais ni ñu lay def moo raw dóor parce que dañ lay mettital ci ay kàddu di la mettital ci ay geste di la mettital ci ay jëf yoo xam ne foog naa bu ñu la dóoroon sax moo lay gënal. donc problème bu ngeen mënta am que soit la situation. war ngeen a mën a jël problème boobu dans le calme mu ngeen euh, ngeen gérer ko ci silence mais man moom vla man moom kuy kuy final jigéen man vraiment kooku du ma mën du a ànd ak yow alors euh, de retour euh, sur le plateau voilà je suis euh, toujours avec on est toujours avec euh, maître Thiam maître Thiam déglu nga reportage bi waaw déglu naa reportage bi reportage bu am solo la li mu wone rek mooy que violence conjugale mooy sujet bu actuel bu actuel la ci société bi la nekk ci jamono bi la nekk te euh, ñépp la mën a laal pour des raisons diverses euh, balaa may dem ci fond bi damay rappeler rek suñu émission bi mu ngi am ci benn contexte un peu particulier surtout en France parce que ñuy seetaan actualité internationale xam nañ ne tey mooy procès Jonathan Daval Jonathan Daval mooy koo xam ne dafa dooroon jabaram ba rey ko il trois ans te bizarrement procès bi mu ngi am depuis six jours tey lañ koy clôturer tey la ñuy xam ñaata la ko yoon di mën a daan donc pour vous dire que violence conjugale fépp la am mooy fii mooy bitim réew euh, culture yëpp la laal voilà donc phénomène boo xam ne dafa actuel dañ ci war a euh, liggéey sensibiliser ak xel pour mën a am lañ bëgg. alors euh, maître Thiam euh, voilà on démarre. Euh, euh, avec cette première question qu'est-ce que la violence conjugale. waaw violence conjugale astu dafa yaatu déjà ma leeral ni violence conjugale ak violence faite aux femmes dafa xaw a tuuti parce que violence faite aux femmes dafa dafa large. violence bu ñuy exercer ci jigéen rek loolu mooy violence faite aux femmes mais violence conjugale particularité bi mooy violence entre couple la ak góor ak jabaram déjà waaw loolu mooy violence conjugale il faut que violence yooyu pour mu leer mhm. donc moo tax ma ne c'est différent de violence faite aux femmes boo xam ne moo gën a yaatu bi violence entre un deux conjoints que ce soit Euh, la femme envers son mari ou du mari envers envers sa femme donc loolu euh, moom laay njëkk di leeral euh, li ci topp mooy que violence conjugale mooy métit boo xam ne bépp métit boo xam ne conjoint bi parce que dama wax pour pourquoi parce que violence du du côté góor rek mun na nekk ñaari côté yi donc moo tax may préféré wax conjoint au lieu voilà au lieu de dire violence du mari envers sa envers sa femme donc euh, bépp métit boo xam ne conjoint def ko teg l'autre conjoint mun na nekk ci wax mun na nekk également physiquement ci ay jëf donc violence conjugale mun na nekk verbal comme mun na nekk physique c'est pas simplement euh, di euh, donner des coups mais ay xaste ay wax bu ñaaw Euh, dóor euh, ba ci violence sexuelle sax d'ailleurs parce que loolu aussi am na donc en résumé loolu mooy violence conjugale violence métit boo xam ne conjoint bi mu ngi exercer ci beneen conjoint bi donc dans le cadre d'un mariage que ce soit ay wax la xas la saaga la euh, wax ju ñaaw walla sax ay dóor yu mel noonu parce que psychologiquement mun na travailler sa conjoint ah, bien sûr parce que violence conjugale euh, day day am conséquences yu bëri non seulement ci conjoint bi mais même même même ci ci ci xale yi ci les mm. euh, wax nga léegi ne violence conjugale aussi si côté sexuel alors que je pense que ñun suñu religion mm, la religion musulmane surtout ah tamit jigéen di bañ. sëkk ak jëkkëram euh, voilà si côté sexe daal léegi alors yow yaa ngi naan si nu ma comprendre ah boo forcer sa jabar violence conjugale ñëw na. Euh, te ñu dañ naan suñu religion. naruñu jigéen naru bañal euh, jëkkëram bu ko soxla mhm. voilà donc. en fait j'ai pas voulu dire que boo boo boo forcer rek violence conjugale je veux dire que. même ci rapport sexuel yi mun na constituer violence parce que aussi am na loo xam ne également mën nga ko def sans pour autant mu nekk mu nekk violent est-ce que est-ce que euh, li bëgg wax donc <laughs> en fait en fait li may wax c'est pas par rapport ak euh, euh, bañ wala war a bañ loolu moom que ce soit l'homme ou la femme parce que dafa am obligation de cohabitation en droit sénégalais en tout cas loolu moo tax d'ailleurs am na ñu bari nee nañ en droit sénégalais le viol entre entre couple n'existe pas Bon, débat là, c'est vrai que ce n'est pas écrit et textuellement. Ça, si et, bel et bien. En la loi dit euh, toute pénétration sexuelle faite par violence, contrainte, euh, surprise, viol la. Mais à côté. sa conjoint bi d'accord viol la. viol moom mooy relation sexuelle boo xam ne amul consentement. xam loolu mun na mun na am ci couple. mais euh, suñu droit est-ce que noonu la koy gisee dès l'instant am na obligation de cohabitation. peut-être c'est pas forcément le cas. yaa ngi wax côté sexuel mais euh, par exemple sama sama conjoint bëgg ma fóon bëgguma ma bi sax tamit si la bokk. oui oui loolu loolu day am comme maa ngi revenir rek euh, ci contexte bi tey mooy affaire Jonathan Dabal en France xaw ma ndax euh, Sénégal ñu ngi koy seet en tout cas am na ñu ñu koy suivre. voilà am na am na am na kii Jonathan Dabal am na sax fu mu wax ni que maire bi foofu la jóge ci ku ndaw si moo bëggoon am rapport sexuel avec avec moom mu bañ pour des considérations yoo xam ne c'est pas intéressant ñu dugg ci donc loolu moo moo donc moom moom laa bëgg wax ne que euh, loo gis rek ça doit fait en douceur bu amee ay force ay contrainte rek mun nga ko considérer comme étant violence conjugale voilà et puis ñu dem ci deuxième question maître su quelle forme se manifestent euh, les violences conjugales waaw euh, junjoon nañ ko léegi violence conjugale comme ni ñu ko waxee léegi dafa dafa bari dafa yaatu euh, mun na nekk ay violence verbale xam nga sénégalais euh, violence physique lañ gën a xam waaye am na ko ko wax sax d'ailleurs ci reportage bi yenn wax ju ñaaw wax ju sew ay saaga ay xaste yëpp violence conjugale la parce que yooyu day stressé day stressé l'autre conjoint day jouir ci si état psychologique am imagine euh, boo xamee ne que boo ñëwee kër ga ñu lay saaga toute la journée ñu ngi lay wax wax ju ñaaw loolu violence la loolu mooy violence psychologique waaw boobu tam ci violence conjugale euh, la bokk mais à côté de ça comme ni ma ko waxee peut-être loolu moo gën a gën a siiw mooy mooy mooy mooy violence physique bi mooy mooy mooy dóorante bi dóor yi ba sax des fois am ay ay ay ba am ay ay moor ah. voilà ëpp xam nga loolu euh, loolu moom beneen affaire la parce que violence boo xam ne day day day occasionné ay ay ay ay ay mort ay assassinat affaire yooyu noonu donc en résumé daal euh, violence euh, mun na nekk verbale mun na nekk psychologique mun na également physique mooy des coups sur blessures volontaires qui peuvent entraîner comme ni ma ko waxee ay la mort wala sax par exemple bu dee c'est exercé sur une femme enceinte mun na occasionner ay fausse couche euh, avortement quelque chose comme ça. comment la loi définit-elle la violence conjugale. waaw euh, xam nga au Sénégal euh, ba euh, avant 99 amoon na ay dispositions ci code bi boo xam ne violence faite aux femmes la doon réprimer mooy violence exercée sur une de sexe féminin moom la doon réprimer mais en dañoo changer code pénal bi duggal ci concept conjoint boobu comme ni ma la ko expliqué tout à l'heure concept conjoint moom mooy indi violence conjugale moom mooy circonscrire lan mooy violence conjugale mooy violence yoo xam ne ci biir couple la donc la loi elle est très claire définition bi dafa yaatu comme ni ma la ko expliquer léegi bépp violence exercée par un conjoint sur un autre c'est considéré comme violence conjugale bépp violence xam nga loolu c'est très important xam nga droit pénal dafa sew booy jéem a rétrécir rek am na loo xam ne mun na rëcc boo waxee par exemple des des des des coups euh, violence verbale bi mun na rëcc donc loolu moo tax ñu jéem a agrandir mooy toute violence exercée par un conjoint sur son conjoint sur son autre conjoint Euh, c'est considéré comme euh, violence conjugale et c'est puni par la loi c'est puni par le code pénal boo xam ne dañ ko modifier en 99 normalement article 297 bis moom moo ko régir mm-hmm. violence boo xam ne c'est exercée euh, par un conjoint. loolu ñu ko woowee crime la ba tey. du crime nag. Mm-hmm. boobu délit la. boobu délit pour muy leer waaw. parce que termes yi nga xam ne xamuñu ko yenn saa yi da ngay ku ne la crime la ki ne la déedéet délit la donc parfois fa ñuy leeral. parce que euh, sanction bi c' est une peine d' nañ ci wax de un an à cinq ans. ak ay peine d' donc du du crime. crime léegi ay viol yooyu ay pédophilie ñoom la ñuy criminalité mais le violences sauf bien entendu sauf sauf bu dee violence boobu physique dafa entraîner ay mort xam nga voilà. voilà xam bu nekkee meurtre rek wala assassinat loolu moom crime la mais bu dee violence kese xam nga même même même coups et blessures yooyu noonu sa dépend la loi distingue selon que ITT bi interruption temporaire de travail bi xam nga boo amee bu ñu la dóoree il faut nga dem ci médecin le médecin bi mooy wax na euh, li ñu la dóor am nga ITT de temps wala de temps donc même les peines dépendent un peu selon que ITT bi c' est de 21 jours ou moins de 21 jours est-ce que yaa donc mais dans tous les cas comme je l'ai dit bu dee amul ay euh, meurtre wala ay assassinat c' un délit un délit puni sévèrement par la loi parce que la loi day interdire sax sursis sursis mooy xam ba mun nga def infraction nga dem tribunal ñu condamné la peine boo xam ne doo tëdd loolu mooy sursis. sursis loolu mooy sursis. alors que euh, article 297 bis bi. day interdit sursis boobu ñun à chaque fois qu'il y a violence conjugale bu dee euh, peine euh, ITT bi ëpp na 21 jours juge bi mënul sax joxe sursis donc su ñu dans tous les cas le conjoint dina am prison ferme. D'accord, maître. Comme vous le savez, au Sénégal, une femme sur dix, elles sont victimes de, de violences conjugales. Souvent, elles ont peur de parler Ils ont peur, euh, voilà, peut-être de pousser la porte d'un commissariat, des trucs comme ça. yooyu day am léegi loolu bu amee eh, jigéen bi ban yoon la mën a jaar pour euh, mën a ñu àtte ko jëkkëram wala tribunal régler problème bi. waaw xam nga xam nga la loi moom elle la là pour tout le monde euh, les mécanismes en tout cas la loi elle est là elle a prévu des sanctions contre les violences conjugales maintenant euh, ñun aussi am nañ suñu culture. Euh, am nañ suñ sociologie qui fekk que d'habitude dafa difficile pour une femme dem police walla tribunal de porte plante comme contre contre jëkkëram loolu si culturel loolu c'est pas une question de loi parce que nit ki aussi yow yaa souffrir de violence yow yaa aussi war a def démarche pour euh, nga nga nga nga porter plainte walla nga dem tribunal. Euh, yow yaa mën a jël décision bi pour mën a porter plainte et puis jëmale ko tribunal. te loolu parce que le plus souvent peut-être que elles sont voilà indexées pour dire que xoolal kii moom moo yóbbu jëkkëram tribunal y a les enfants qui sont la xam nga du yomb comme ni nga ko waxee rek culture baa ngi fi. voilà donc. Euh, euh, jigéen ñi dañuy préférer vraiment dee ci seen seen seen chambre que de voilà que nit ñi xamal leen d'ailleurs que. Euh, ñu ngi leen di dóor ça c'est un deuxièmement bu fekkee couple bi dafa am ay ay doom des fois duñ ko duñ ko voilà duñ ko duñ ko bëgg également xam dem tribunal xam dem tribunal voilà xam tribunal audience euh, jugement si publique public boo demee waa ñëppay taxaw médias yi ñëw peut-être sa tour ñu koy siiwal bu dee da nga am ay doom yoo xam ne dañoo dañoo xaw ma même bu dee maguñu sax euh, internet mu ngi fii di si dix vingt ans mun nañ ko gën a yooyu yëpp yéen dañ koy sooraal c'est vrai que c'est pas des choses qu'on qu'on encourage parce que aussi kenn warul mën a euh, tolérer euh, que une personne ah quelle qu'elle soit puisse lever la mais sur une autre personne nga nekk jigéen ou pas mais euh, pesanteur sociale yooyu moo tax que très souvent c'est très difficile voilà c'est ça parce que d'habitude aussi ah couple bu demee ba dem euh, tribunal surtout devant un juge correctionnel boo moytul mariage bi c'est très difficile pour que mariage bi mën a survivre. ah mais <laughs> que ba jógee ba dem tribunal xam nga ne y a des conséquences je waaw waaw mais justement nag euh, yooyu dañ koy sóoraan. boo jógee sax ba décider dem tribunal c'est parce que vraiment da nga doyal sonn nga. voilà nga xam nga en fait je veux dire. tribunal euh, na fa jege yàqu. yow xam nga ne yow mi sa biir fu nga toog xam nga ne tribunal bu ngeen fa yeggee. c'est-à-dire c'est pas parce que l'un des conjoints est condamné que mariage bi euh, yoon da koy yamale foofu non ça n'a rien à waaw moom laa wax moo enfin nit mun nañ am problème aujourd'hui suba ñu jubóo ah. loolu c'est c'est c'est possible. loolu c'est possible waaw xam naa ñu bari loolu moo tax exactement. ñu bëri loolu moo tax duñu bëgg dem tribunal parce que ils se disent que bu ñu demee tribunal retour en arrière dootul am euh, parce que am ñoo xam ne loolu la ñuy wax bis boo ma yóbbee tribunal voilà suñu suñu déggante fii la yem donc jigéen ñi également honnêtement dañuy bëgg souvent sauver seen mariage sauver seen foyer leurs enfants passer euh, penser à à leurs enfants loolu moo tax elles préfèrent souvent se sacrifier hein, euh, pour, pour, pour, pour, pour le couple. Quelles, non, les démarches à suivre pour les personnes qui sont victimes de de violence conjugale démarche yu ñu mën a jël bu la xesee ba dal foo mën a jaar. waaw foo euh, déjà euh, je pense qu'au Sénégal am na ay structures je pense am na une cellule qui s'occupe un peu la violence faite aux femmes et loolu jigéen boo xam ne loolu daan la mën nga dem ci ñooñu. y ça mooy centre euh, c'est c'est une cellule hein, qui un voilà. am na également l' association des juristes sénégalaises ah. Euh, oui association des juristes sénégalaises ñun ñu ngi commettre ay beaucoup d' def fois quand ces cas là se produit ñu ngi jàppale ay jigéen ñu bëri mën nga dem foofu ñu xelal la wan la yoon. Euh, wala bu dee xam nga un peu de yoon wala am nga xam nga benn avocat et tout ça euh, mën nga ko contacter li ci des mooy loolu bu la dalee aussi il faut nga il faut mu am firnde bu dee da nga am ay gaañu gaañ il nga dem voilà. loolu moo gën a moo gën a complexe. dooree ba nga am ay gaañu gaañu fan nga nar a njëkk dem da nga nar a jëm wuti certificat médical d'abord ou bien da nga nar njëkkee police lan lan la ndikki nara def d'abord démarche yu mu nar a njëkk def. démarche ba bu dee dafa am ay gaañu gaañu. médecin moo ko mën a attester. si médecin bi waaw moo ko parce que moo ko mën a attester parce que aussi euh, ñëw rek am naa gaañu gaañu euh, il faut que qu'il y ait un certificat médical parce que juge bi du médecin du docteur. day dem ci médecin bi d'abord. au moins day am na ay gaañ mu attesté au moins parce que aussi même comme ni ma la ko waxee même tribunal compétent bi sa dépend du nombre de ITT ITT mooy interruption temporaire de travail xam nga mën nga dem ci médecin mu ne la yow de li la dal am nga repos de dix jours vingt jours vingt et un jours. bu xasee bu eggee vingt et un jours rek sax day gën a garaaw parce que vingt et un jours bu amee ITT de vingt et un jours rek le mandat de dépôt devient obligatoire. Mm, waaw mais loolu bu amee mandat de dépôt day obligatoire nit bu la porter plainte pour CBV mu indi certificat médical boo xam ne c'est minimum vingt et un jours yow moom lu lu procureur il est obligé de décerner mandat de dépôt ah waaw donc euh, li ci des des problème de preuve aussi problème de preuve aussi mun na am xam nga violence mun na am sans pour autant mu am ay blessures loolu bu xewee dans une chambre euh, c' est une parole contre une autre mhm. donc c' est des fois complexe parce que aussi couple euh, c' est un couple euh, mun na xew dans le salon mun na xew dans la dans une chambre sans pour autant que voisin yéeg sans pour autant que keneen yéeg voilà mun nga ko wax euh, keneen kii weddi donc euh, voilà souvent dañuy wax justice bi mais justice boo xam ne aussi mënul mënul condamner sans sans sans qu'il y ait preuve. après que le médecin atteste euh, le certificat médical ou bien si nga koy jël nga soog a dem commissariat. oui déposer déposer une plainte. nga nga nga porter plainte. Mmh, porter plainte. maintenant boobu. plainte bi mmh. yi. normalement dañuy woo keneen ki. à waaw déglu ko. bu dee jar na ko ñu arrêté ko garde à ñoom ñooy apprécier. Ah. waaw ah. waaw parce que ñoom ñooy waaw ñoom ñooy enquête ñoom ñooy enquête donc euh, mun nañ arrêté nit kii comme aussi mun nañ ko bañ a arrêté ça dépend affaire nu mu mel buñ paree seen PV bi procureur lañ koy jébal pour la république parce que procureur de la république moom rek moo am sañ-sañ pour poursuivre walla bàyyi loolu moo ko moom même officier de police judiciaire moom mooy seen patron moom moo leen ne arrêté arrêté leen kii wala bàyyi leen kii bu ñëwee ba ci moom nag mu apprécier par rapport ak dossier bu mu yor soit mbir mi ñu yóbbu ko jugement bu dee am na des éléments wala ñu classé ko. léegi maître dogguma la mais euh, si toutefois que ngeen dem euh, police ba ñu yóbbu euh, dossier bi si si juge bi. c'est pas comme ça on dit juge tribunal. tribunal oui léegi est-ce que ku góor ki dina mën a ñëwaat. toog këram le temps que ñu leen di convoquer au tribunal dëkkaat ak jabat yi noonu si foyer bi. oui y' a rien y' a rien qui l' interdit hein. parce que am na xeex am na man ma xam ne ki ma dëkkal si benn kër euh, ma fem daf ma yóbbu tribunal te xam nga ne ay risque nga fa. peut-être dinañ ma daan peut-être duñ ma daan. Mm-hmm. nga dëkkaat ak euh, nga ñëwaat dëkk ci Kékeno est que dëkk dëkkaay bi dina yomb dëkkuwaay bi dina yomb. moom du yomba moom couple moom bu naree ba am ay dóorante ay saagante ba tribunal. voilà euh, loolu moom c'est clair que. mariage moom tant que divorce amul te benn juge jëlul dogal euh, li ñuy wax ay séparation de corps le couple est censé vivre ensemble. sauf si bien entendu l'un des deux estime que sa vie est en danger loolu aussi juge mën na ko comprendre mais yooyu dañ ko war a prouver aussi bu dee votre vie est en danger ngeen mën ko prouver. tamit lu ko war da koy def si njabootam dépense ah normale. bien sûr dunda ak yëpp. ah d'accord ok mais ñëwaat si beneen question bi quels sont les risques encourus par le conjoint waaw euh, wax naa ko léegi. Euh, code pénal bi moom dafa leer. mu ne euh, ku ñu reconnaître coupable de violence encore une fois ça dépend ITT bi c'est solo que ITT mat na un jours ou pas bu dee mën na vingt 21 jours daan bi c'est un an jusqu'à cinq ans am ay amende euh, cinquante mille je pense jusqu'à cinq cent mille bu dee ITT bi matul 21 jours aussi am na ba tey un an à cinq ans peut-être amende bi moins li gën am importance par rapport à ça c'est l'interdiction du sursi xam nga sursis expliqué naa ko sànq juge mën na condamner nit mu bàyyi ko en liberté may ko deuxième chance comme di dit mu bañ a tëdd ñu condamné la un an boo xam ne doo ko tëdd loolu mooy sursis mais yii nii bu amee c'est la loi elle-même qui dit que le sursis est impossible juge mënul may sursis donc ki ñu condamné ki ñu reconnaître coupable day tëdd kaso. d'accord maître xam nga dañuy dellu rek régie am euh, ñu ay question nag yuñ la dencaloon. Mm-hmm. waa léegi nga mën a jéem a xool <laughs> tontu leen. dafa am benn question moom may laaj ci avocat bi jigéen ak góor bi bu ñu am ba am problème ba ji bi dóor ko ba gaañ ko est-ce que jigéen bi am na droit moom dem tribunal déclaré ko ci ci faute bi ko góor bi def na est-ce que jigéen bi am na droit def loolu. waaw dama doon laaj tamit eh, ci wàllu diggante ñaar ñu sëy diggante góor ak jigéen eh, bu yàlla defee seytaane ñu seen diggante eh, góor ki dóor jigéen bi ba gaañ ko ci jamono bu ñu nekk nii ci senegal jamono bu ñu nekk nii léegi tirbinal ban dama ci buggoon laaj léegi ban yoon la war a jigéen bi ban yoon la war a jël ba ba am ci ndam loolu laa laaj. léegi bu fekkee ne aussi. da nga nekk sa ménage ah euh, ngeen dem di dem di dem nga nekk di sëy ngeen dem ba nga dem ba fa ba am fa ay njaboot bon nga jour rek sa borom kër gis beneen jigéen dem dëkkali ko bàyyi la fa du la jox nga lekk du la jox nga naan du du ñëw sa di la xool wala aussi mun na fay ñëw mais ke lay gën a favoriser lu ku bees ki lay gën a favoriser dem ñibbil ko léegi yow lan la yoon wax ci yow da nga war a toog foofu nga toog di ko xaar wala lan nga war a def ban ban ban jéego nga war a def. sa jëkkër di la dóor amoo jaam amoo salaam ñu lay dóor léegi yow doo mën a daw doo mën a kii yaa ngi bëgg a toog pour gérer sa mariage mais nan ngay def pour dóor yi arrêté. fan nga jëm. waaw maître ñoo ko déggando kii moom nee na boo am nekkee sa jëkkër mu lay dóor xam nga dóor yi metti euh, nan ngay def munoo dem fen nan nga nan lan la mën a mën a def. bon munoo munoo dem foofu aussi la comprendre <laughs> moom laa doon wax léegi xam aussi y a un choix à faire. un choix à faire. Euh, dem. Euh, soit nga porter plainte. dem tribunal comme ni ñu ko expliqué léegi wala tout simplement nga demander divorce voilà euh, comprendre naa question am ah. Euh, c'est des femmes yoo xam ne ñu ngi subir violence te vraiment mënuñu bàyyi seen njaboot dem. c'est c'est waaw loolu la c'est très difficile. munoo bëgg a porter plainte contre votre mari bëggoo dem euh, voilà c'est c'est c'est difficile. xanaa peut-être nga jéem a waxtaan ak moom rek négocier waaw parce que aussi non on am na ku ne voilà nga am sa jëkkër mu am keneen bàyyi la fa. waaw xam nga loolu aussi. Euh, au Sénégal. Euh, les. on dit en fait est-ce que daf lay bàyyi totalement wala. Euh, en tout cas dem xam nga favoriser ak bàyyi dafa dafa wuti un en tout cas au Sénégal. góor am na droit bu siñewul monogamie am na droit am jusqu'à quatre ah, n'est-ce pas non non du mooy foofu laa jëm ah, am na droit non je dire que am na droit am deuxième loolu c'est pas un problème bu dee euh, loolu la signé am na droit même bu mais bu amee deuxième tam am na war na yamale ñaari yi parce que au Sénégal les charges du ménage pèsent à titre principal sur le mari. Ah, góor ñi nga xam ne mos bu ñu amee lu bees rek. dañuy waaw. bu dee loolu am na. nga am sa jëkkër dañuy jeng jeng nga waxee si olof dañuy jeng daal kenn yenn ñi sax dañuy dem ba dootuñu yàqati dépense sax seen kër. loolu loolu c'est pas normal loolu am na. ce qu'on am na ce ko nappel contribution aux charges du ménage. loolu bu amee bu dee yaa ngi nekk sa kër sa jëkkër abandon enfin pas abandon total en tout cas. Euh, defatul voilà defatul war. oui defu ko. tribunal d'instance. nga déposer une requête au fin de contribution au charges du ménage juge bi da koy condamné da koy condamné fixé chaque fin du mois par force lan la war a indi voilà boo amee décision boobu bu dee day liggéey salaire am sax mun nañ ko mun nañ ko saisir. gis naa ko am na ku nga xam ne dëkk na ak jëkkëram jëkkëram commencé vraiment di bàyyi loxoom li mu doon def avant defatu ko. dina tulal njabootam daf ko yóbbu tribunal. mais bu mu ko yóbbee tribunal ñi teggi teggi si salaire jëkkër ji à chaque fois di ko jox te ñoo ngi bokk benn kër. ñoo ngi fanaan benn kër di yeew léegi ñu dem ba quelques années xam na nga rek diggante couple xam naa yërmande bi nekk fii mu dem ba delloowaat ko li mu ko dem jox. mu nga jumtukaay jumtukaay ñu ngi fii. lii yëpp loi bi prévoir na ko le seul problème difficulté bi c'est jigéen ñi c'est notre sociologie peut-être notre culture. voilà euh, xool nu mu expliquer euh, yaa ngi subir euh, divorce kii violence munoo munoo munoo dem fenn. dafa métti. voilà. parce les enfants bu ma demee xam nga rek kenn ñëw toog peut-être voilà tout ça voilà. mais les instruments juridiques sont là honnêtement. waaw contribution de ménage am na góor bu abandonné kii am. y a des conséquences donc lépp mu fi. mais mu ñëw si benn question bu nga xam ne vraiment duñu faral di ko laaj parce que dañuy foog ne amul existé wul et ça existe bel et bien affaire u violence des hommes on en parle très très peu maître violence des hommes am na. <laughs> am na am na comme je l'ai dit ah xam nga puisque violence du du physique rek même physique sax am na man j'ai eu des cas yoo xam ne. Euh, jigéen jabar dafa door jëkkëram ba kooku demandé divorce pour violence aw ah, waaw c'est vrai que c'est pas courant mais am na euh, et puis euh, violence c'est pas simplement physique mais am na ay jigéen yoo xam ne seen lammin dafa ñaaw dafa ñaaw yóbbu nga ko exercer ci ci góor ki chaque jour chaque jour am ñoo xam ne sax y a des hommes dañuy ragal ñibbi seen kër euh, à cause de ça voilà ay wax juñaaw ay xaas aux hommes aussi am na. te góor ñi tam am nañu droit dem tribunal yóbbu sa njaboot tribunal. bien sûr violence violence rek. ah, ah oui violence violence rek. boo euh, subiree des violences yoo xam ne mun nga ko prouver mun mun nañ ko attester. ñoom xam nga dañuy am kersa di dem. exactement tribunal naan ah tu sais man sama jabar daf ma dóor. ils se sentent faibles. voilà en tant qu'homme dañuy wax ne voilà dañuy. ñoom une une culture pour ñun. Euh, góor moo war a exercer domination sur la femme. sur la femme waaw nga xam ne abuñ la jàppee <laughs> waaw maître kon euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo. donc euh, Astou ngi lay remercier bu baax kontaan naa trop émission bi également maa ngi ci kontaan surtout ci thème bi comme ni ma la ko waxee ci njëlbeen thème bu am solo la thème bu central la voilà donc yu mel nii baax na pour aussi jigéen ñi. am na sax comme je l'ai dit ay instruments ay institutions yoo xam ne jigéen juriste yi déjà yi nekk ci loolu mais dafa baax très souvent aussi ñu wax ko ci télé yi ci rajo yi euh, surtout vraiment li gën a important pour sensibiliser surtout les hommes parce que aussi ñoom ñoo ëpp euh, doole que la solution c'est pas c'est pas de de de de euh, lever la main sur une femme du wax du ñaaw non non non problème mën na am c'est inhérent à tous les couples mais euh, quelque que soit l'ampleur mm, war nañ mën a discuter war nañ mën a waxtaan au moins pour euh, voilà éviter éviter yenn yi parce que on ne jamais ah mën nga euh, voilà exercer quelques violences mort d'homme suivre ci assassinat doo xam parce que doo xam nit mën nga ko dóor coup de poing nga foog ne c'est c'est banal mu mu dee Euh, euh, loolu bu amee voilà loolu bu amee beneen affaire mooy mooy euh, en ce nekkatul violence conjugale mais ay meurtre assassinat mooy am te loolu les conséquences sont extrêmement désastreuses Euh, ñu ngi tàggatoog nag euh, aimable téléspectateurs yi nag euh, di leen fàttali rek dañu nekkoon nag maître Salim Mamadou Thiam avocat à la cour il est chargé de communication de l'association des jeunes avocats sénégalais bañ a fàtte nag kii di sama coiffeuse bu baax bi di Rima Beauté nekk Castor moom mu maquillé defar ma mu baax waaw maître kon ñu def noonu ba beneen yoon. ba beneen donc on ah yow kay di nga si waat <laughs> <laughs> voilà kon ñoo ngi leen di tàggatoo si ñu def tag ba àjjuma mag jàmm incha allah.